cela ñu replacé wu dañuy tëjoo dégg Cheikh kenn dàqu laa fa mais xam damay doon défenseur damay doon défenseur football défenseur rôle défenseur ba mu def ba mu ba mu wóor ba mu xam ne dana joué la rôle défenseur bu wóor maa doon dem attaque. gars yi gars yi xoolal affaire bi leer na de bu dee ko ci wax yow leer na bu dee xool nañu man ci xool boo defee ndànk nga defar di nga dugal deuxième et puis benn affaire bàyyi booy kii comme mu jéeg man man ko tey dugal parce que man li muy dugal dafa ak comme ñu jox bal ñu dox bu ñu xoolee daw et puis bu ñu nangu rek dugal nañu ñoom dañuy dute ak ñoom jaar dañu recherche dañu génn digal yéen a ngi génn yéen a ngi génn pour avoir deuxième mais tant que yéen a ngi taxaw ñoom dañuy ñëw te gars yi ñu ngi fi deuxième mi-temps day métti foog ngeen sur le bon Let's go, Jeff! Bye. ay waa contentement rek contentement avant d' abord damay féliciter dirigeants yi nga xam ñoom ñoo ñoom ñoo ci participer ci ci victoire bi parce que kenn ku ci ne def nga ci li nga ci war di def moo tax te tamit goos yi nanu comprendre nanu li bi leen doon expliquer li ñuy jouer comprendre parce que ñun ñëpp ñoo fu balandoo man ak ñoom ñoo fu balandoo ñun ñëpp ñoo bokkoon bekk même ASC fu balandoo léegi comme ñoom neex na dañuy neex na waxal am naa ci yëg-yëg nag nag boo xam ne bu rëy rëy parce que nga ñëw nii doon footballandoog ñoom ñëpp ci ci ci équipe bi ba toll fii ñu jox la équipe bi nga ñëw te premier match nga am victoire kooku contentement la ci man fierté bu rëy la ci man waaw.